lu bi benn la fii ci Sénégal ñu nemmeeku ni jàngoroy hypertension artérielle law na fi lool ci ab jàngat boo xam ni organisation mondiale de la santé defoon na ko ci atum 2015 ñu mën a seetlu ay chiffres yu ragal lu lool. kon xam nga bari na téeméeri yooyu doo jël au Sénégal fanweer yi dañuy am hypertension artérielle bu yéeg moo xam ne ëpp na 140 millimètres de mercure ak 90 millimètres donc ëpp na 14 9. docteur Paye jàpp ni la waral loole bëri na bokk na ci li malade yi di yéex a saytu seen wërgu-yaram. wax nga lu am importance l'idéal moom mooy de se faire dépister d'ailleurs te mu daaw bi dañu ne woon ak ren bi sax euh, ku nekk daal nanga nga fexe dem mesurer sa sa sa sa fu mu toll pour mën ko contrôler pour mën a dund dund bu yàgg bu si yàlla ànde waaye mu mel ni traitement bi jafewul loola su dee ni jàngoro bi yeggul yenn dayo yile mën nga am tension bu yéeg te duñ la jox garab moo dañuy wax def mesure hygiénodiétique bu fekkee dañu la jox garab am na njëriñ saa yu la médecin bi joxee garab nga koy jël garab bi dana wàccee say chiffre tensionnel mais garab bi sa giiru dund nga ko war a jël nga tension boo ko fajul boo ko amee te fajoo ko li li si gën a bon mooy comme ay complication complication mooy AVC accident vasculaire cérébral crise cardiaque ah insuffisance te loolu dialyse yi ngeen mu chéré beneen seetlu bi moo di ni jàngoroy hypertension yàlla bëri na lu muy dal ay ndaw ngir moytu ko faw ñu yëngal suñu yaram bés bu ne boole kook lekk gu baax di moytu suukar su bari xorom su bari waaye itam diw gu bari